tabarakallahu Cheikh Mamadou Bachir tontu li leer na lool am na solo lool dañoo wax ne Serigne Bara Mbacké xalifa Serigne Bara Khouroudia ñu ngi fi jalaale waa Touba Vision itam wax na ci ñu ngi jàllale ñu fi dem waxtaan kon Cheikh Mamadou Bachir li nga indi day loo xam ne ma bëgg sax di ci jéem a tegaat dara ndax mbedd yu bari yu mën a jaar ci leer dañu waaj mu ne dafa dégg ci benn borom xam-xam boo xam ne kuréel xasida yi ndax li wax sànq sëñ bi déglu na ko te it sëñ bi daan yare ci ay anam yu bari daana yare ci jàng alxuraan daana yare ci jàng xam-xam daana yare ci jaare laxasaay ci jàng xasida ku mës a ñëw weesu jàng sëñ bi yóbbu ko daara tarbe yi muy liggéey nga di sëñ bi di ko defar bu ak ba àgg ci bu waxee mu dëppook alxuraan bu dëppoo mu jëf ak sunna mu nëppoo ak sunna daana digal tamit ci ñu jàng xasida tegtal bi ci gën a leer mooy sëñ Balla Fall Dieng bu mu joxoon xasida waaw dafa am ku ñëwoon ci sëñ Tuubaa ne ko defar ma sëñ ko dafa laaj taqoo taqoo la waaye nag demal ci Balla Fall Dieng defar naa ko te sëñ Balla Fall Dieng sëñ bi joxoon na ko yàlla ma ne ko day ci yar say ñoñ say taalibe xanaa mbokk yi kenn ku ne murit bu ne xanaa xanaa war ngaa bëgg ngaa bokk ci taalibe ci ñooñ sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa ba muy lim ba muy wax kuy bokk ci moom na ngay mel kuy bokk ci moom la koy maye boole lim na ci jàng xasida kon amul daa a jàng xasida ngir bokk ci ñooñ sëñ Tuubaa dafa am ci nit ñi xam ne ni daal dafa mel na jàng xasida da leen di déranger moo tax ñu wut ay tuuma yu bare bare di ko jëmale ci jàngkat xasida yi naan ñoom duñ jàng xam-xam dañoo dañ ci bàyyi téere sëñ bi lu mel ne foofu si xaar subaan ak jawar nafis ku leen wax loolu ku leen wax ne duruskat yi jànguñu tiir téere diine yi loolu ay tuuma rek la ku ko wax xamoo li xew xamoo réalité bi am duruskat yi nit ñi fonkee xam-xam ak nañuy jàngee xam-xam ku leen tuumaan loolu xamoo leen xanaa xamoo ne am na ci duruskat yi ñoo xam ne nii dañoo jàng ba jeexal téere yi tey duruskat yi ñu ci ëpp ay jàngkat tubaab la ñu seeni waajur dañu leen a jël dugaleen ci école tubaab bi ñoo dem ba màgg xeemeem xasida yi ñu bokk ci daayira far ijji di góor ba mën a jàng xasida di góorgóorlu ba jàng alxuraan di góorgóorlu ba jaaxal ba jeexal téere yi am xam naa ci ñoo xam ne nii mboolem téere yi ñuy jàng jàngee nañ ko ba ci xale sax gis la ak saani te boo leen gisee ñu yor sa ñu yor seen doon xasida nga yaakaar ne xamuñu dara seen diine mm-hmm. tey dafa am leen lu am gis nga téere xam-xam yi li ci ëpp dañ ko traduire ci français ak ak ci leen yeneen langues yi. Mhm. loolu mi ngi tàmbali woon depuis jamono si Ibrahima. danaa ci tudd benn xisa sëñ seex Ndiol mu sëñ Moussa Bassirou sëñ bi da ko mos a traduire loo masaale ko ginnaaw mu traduire ko ba noppi indi ko sëñ bi ne ko xaalis bi ci ëpp mu ne ko milliard man ma ko ne ci ne ci gémmiñam mu a ko balaa déwén da nga ko am avant déwén sëñ Cheikh Ndiol am na nee na ma nag boo ko amee dama wut ñetti ñetti ñetti mallette mallette bu ne ma def ci 10 millions benn moom man ko bàyyi barabu sëñ Tuubaa beneen bi nee na sëñ Abdou Khadir moo ne woon sama sëriñ moom laa ko jox nee na beneen bi nag ma dem jox ko sëñ Abdou ne ko am milliard balaa déwén am naa 3 milliards lii nag maa la ko jox boo yokkee ma yokk da koy maame sëñ Sàmbay ci lënkuloo gum lënkuloo daayira étudiant murit ñu is bi tarxee tey sëñ Abdou Khadir joxoon na leen ndigal ñu traduire masal ak téere yu bare bari fàtte nañ ko tawru sixaar tasawru subaan naxaju jawhar masaalik munawir sudur mawaahibul xudus yëpp dañ ko traduire en français nit ñaa ngi koy jàng di ko xam xoolal daay dem fàttali bi bi nekk Gaston Berger bi euh, Ndar nañ sax ilhaamul dootu ak jawaabu soxna Penda jële ci arabe yóbbu ko ci français ak anglais ñooñu kay xanaa doo xam ne seen diine te booba 1991 lañ ubbi Gaston Berger at moomu lañ fa sos daara xasida at moomu lañ fa sos fu ñuy jàngalee majaalis boo demee ci fu ñuy wax euh, salle 6 4 à 2 depuis 1991 duruskat yi nga xam ne jànguñu xam-xam ñi nga tàmbali foofu ci université bi di jàng téere xam-xam yi lu mat juróom benn junni génne nañ fa ñoo xam ne ñëpp jàng nañ fa lu si xaar lu si ñenn ñi sax jàng nañ ba àgg ba àgg ci xal ñenn ñi sax foofu lañ mokkale alxuraan nga xam ne dafa bokkoon ci sart ya bañ koy sos ku fa bokk ci daayira boobu te muy daayira daayira durus da jàng alxuraan ak xam-xam ñenn ñi bañ duggee ci daayira bi dañ bàyyi musique ak baal ak sabar ak poom ak doxaan ak farantu di mu jigéen ñi di muuru di taxawal julli juróom di jàng alxuraan di jàng xasida am na ñoo xam ne wekk seeni waajur yi jàng xasida moo tax ñu def ko am na ci koo xam ne ni moom bokkutoon ci daayira pour wàll la nam yàq woon te xasida defar am na ci koo xam ne dafa mas a am ñaari xar xam naa turam waaye dañ ko tudd ñaari far mos a am yaayam ne ko sa ñaari far yi dañ ciy bàyyi kenn jàpp kenn bi ci des mu xaru bi ne lu tax waajuram bi dugg ci biir privé ba xaru bi ña doon jàng xasida ñoom yàlla na leen musal ci loolu bañ bàyyi yëpp di jàng xam-xam kon taxaw naan duruskat yi jànguñu téere seen jubaay yi ki koy wax xamul réalité bi am te danaa wax réalité bi am bañ xam ne ñu ngi jàng xoolal am na daayira bu ñuy wax aslem grand yoff ñoom ñëpp day jàng alxuraan góor ak jigéen ndaw ak téere xam-xam yi àgg nañ ci bisu dimanche bu ne ñooñu ñuy wax naan ay duruskat lañ ñu dajaloo jàng wàcce kaamil ci weeru koor gi ba weeru koor bii ñu ngi koy def dimanche bu ne dimanche bu dul weeru koor dimanche bu njëkk ci weeru koor dimanche bu njëkk ci weeru ñu jàng kaamil ñoom ñoo ñoo defar site internet Serigne Sam Mbaye net Serigne Sam Mbaye ñoo defar siira point net mooy siira boobu sëñ Basiiru xol xom yàlla ko fi yàlla yàggal te dolli ko xam-xam ñoo defar drus point org nga xam ne sa kër ngay toog ñuy dee tëralal tawar si xaar tawar subaan naxaju jawharu masaalik munawir maxaaliqu minal mawaahib waa kër këram di jàng ci def bi ba jeexal téere nga gis ko ci mbedd bi naan jàngul téere sëñ Tuubaa yaa koy tuumaal te yaa ngi wax lu amul ma ne yaa ngi koy tuumaal te yaa ngi wax lu amul xanaa ñoom xamuñu ne li am na bokk na seen projet sax ñoom ñooñu ñu ngi waaj a taxawal lu ñuy wax daare web daare web moom itam ngir jàngale xam-xam rek moo ko tax a jug te ñu defar lii daayira groupe xasaayid la xoola lu ko njëkk sax am na ku taxawaloon ku ñuy wax daayira web ku ñuy wax xaalim jaxate tam ndar la nekkoon nekk étudiant léegi mi ngi Amérique élève woon musta xam benn arab ci alxam bi mu duggee ci durus bi la far ijji dem ba moo ko alxaan mën naa wàcce kaamil ñetti waxtu kooku nag mën nga ko gis mooy dem yor ab dolam nga ah dañuy suur suur rek jànguñu defuñu dara l'apparence est souvent trompeuse daayira boobu am na ñetti kuréel xasida ñuy jàng rajas daayira boobu sax am na ci ku taalif ab téere téere bu am solo boo xam ne nii ñu ngi ko tuddee des hommes autour du serviteur privilégié am na kenn ku ba tey daayira Safinatoul Amaan mooy daayira professeur Kawlax yi ñoo traduire Xuratul Ayni jële ko ci wolof yóbbu ko ci français am na téere bu indi mooy duus xasay ñiy wax dañoo xamul ne mboolem kuréelu xasida mu fi nekk mboolem daayira xasida bu fi nekk ñu dul xarit xasida ñu nekk ci école tubaab bi daayira yi yëpp am na ay jàngalekatu téere xam-xam yu sëñ tubaab ci ci biir daayira la sëñ bi jox leen diggal bi yàgg sëñ Sidi fekkoon na leen ci sëñ bi moo leen digal ñu def fédération 63 daayira daayira yi nekk ci école français rek nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne ñoom jàng xasida waaye jànguñu xam-xam nga xam ne daayira Cheikh Anta Diop am na ci 14 daayira université Anta Diop ndar 3 Bambey benn Thiès benn Ziguinchor benn privé yi am nañ ci Amadou Hampâté Bâ am na ci benn Bourguiba am na ci benn am na sax université catholique de l'Ouest africain université boobu ab daayira mën fa ak ICAO grande école formation yi ñoom ñëpp am nañ kuréel buy dul xasida am kuy jàngale xam-xam ci biir kuréel bi moo xam IAM la moo xam IFI moo xam CIT la moo xam ITR comme la moo xam SEDAG la moo xam IFA la moo xam ESTM la moo xam IFAS la amul benn ecole walla lycée bu nekk ci biir Sénégal te amul daayira xasaayit am koy jàngale xam-xam ci biir kon ñiy wax daa mel ne dañoo réere actualité bu dee lise yi lise Mbàkke moo ci njëkk ku mu neexee dem laaji ko am na ku fay jàngale xam-xam seen daayira bay dul xasida Jurbel Bambey Kaolack Valdiodio Ndiaye Kaolack Abdoulahi Niass Ndar Sarla de Gaulle Cheikh Oumar Fouti Tall ñëpp daayira xasida ñu ngi fa am kuy jàngale xam ci biir te loolu sax sëñ ci Muxtaar moo leen joxoon ndigal te yàgg na ñu tàmbali ko te fekkoon leen ko lii war a ne fekkoon leen ca mooy dafay jàngale xam-xam génnuñu ci biti di ko wuti waaye ci biir daayira dafay jàngale xam fa la jógee kon ña ngi woon bu dee Tamba Mbuur Fatick Louga li sa maam Cheikh Mbaye Ziguinchor li si Diabo Dakar li si yëpp ña ngi ca Lamine Gueye Blaise Diagne Delafosse Parcelles Assainies Thiaroye Guédiawaye Pikine Yeumbeul Malika Rufisque yëpp ak daay li si bu ne kuréelu xasida maa ngi fa durus ñuy durus xasida am kuy jàngale téere xam-xam ne mën naa ci joxe exemple gis nga université bu Dakar daayira ña fa boo xam ne daayira durus xasida rek ñoo fa nekk gis nga le 2 août 2015 bi weesu dañoo def journée bu ñu taxawal ña ko defoon ci salle IK2 bis boo xam ne daayira université yi yëpp ak école yi ñoo dajoo la sos ko ñu wut ñetti conférenciers yoo xam ne nii ci ay étudiants lañ ak ay élèves kenn ki ñu leen joxoon. ñetti tam la woon kenn ki ñu ko joxoon njariñal xam-xam ci ndaw ñi ak waxambaane keneen ki njariñal njub keneen ki jeunesse bi ak patriotisme mooy bëgg fa ñetti élève ak wala ñetti étudiant lañu jox thème bii ñoo ko traité traité bu leer nañ kon kay ñooñu ñu ngay jàng xam-xam mhm. ba noppi nag ñu wut ñetti borom xam ñu wut ay borom xam-xam ci yoon wi ñu woo leen ngir déglu ñii li ñu wax ndax jaar yoon wala jaar yoon daaw ñu ko noonu docteur Xaalim si la ci la bokk pour neex nga dem laaj ko docteur Jibi Yaxate ci la bokkoon inspecteur Sambusa ci la bokkoon pour neex nga dem laaj ko docteur Cheikh Gueye Enda ci la moom ci la bokkoon Ahmad Saloum Diang Mamoun Mbacke Balla Dior Serigne Jiri Mbacke Alhaji Fallou Moussa ñii fay bokkoon Serigne Bassirou Porokhane moom Cheikh Mouhamadou ba Bassirou bañ paree ma wax ci turu Cheikh Bass la mu wax mooy su ngeen ma wax waxutoon ne ñii ay élèves lañ. ay étudiants lañ du ko xam damaa jàppoon na ay dongo ay tarbiya yu génne ci daara ay tarbiya la moo ñu doon def conférence te loolu ñu fam daal danañ ko defaat ren incha allah ci 24 juillet bi ñu jëm 2016 bokk nañ ci ñoom war a teew déglu ñi ñuy wax naan du jàng xam-xam ñi ñuy wax naan xasit rek ci yam jàng ñu téere sëñ bi ñu tànn ci ñoom ñu def ay conférence ñi leen war a te ñi leen war a saytu bokk na ca sëriñ Xaadim Lo mu sëriñ Mustafaa Abdurahmaan Lo ak sëriñ Abdul Aziz Mbàkke Majalis ak Alaaji Njaay Cheikh Nindi ak sëriñ Mbàkke Abdurahmaan ak Cheikh Ahmad Mbàkke Abdou Wadoot nga xam ni daayira durus ñu jël ñoom ñu jàng alxuraan jàng xasiida yi jàng téere sëriñ Tuubaa ba mën def ay conférence insha allah le 24 juillet bi dana am comme neexee dem fekk ko xoolal Nuuru Daarayni daayira bu nekk Pikine la ñu ngi ko sos 1984 ci jamono si Ibrahima depuis ba léegi daayira booba am na ku fay jàngale xam-xam kon tuumaal gi ñu tuumaal naan jàngkatu xas yi dañoo jàngul xam-xam fu ñu ko teg mooy ñàkk xam réalité xoola daayira xidmatul xadim Tuubaa yëmbal ma war ma war bàyyi daal mi xam na fa ña ngi fay jàngale ku ñu wax sëñ Modou Diop moo fa jàngale xam-xam ak alxuraan jigéen ñi di muuru di jàng xam-xam te daayira xasiit la woon que sëñ Tuubaa gi ci yëmbal sëñ Abibu Sow ajjuma ju ne mu jàngale fa xam-xam xoolee daaray xasiide kër sëñ Asan Faam mbuur ku ñu wax njaay xasiida moo ko sos turam sax dafa am xasiida ba ñu bari dàkkante la ko ci xasiida yaakaar na xasiida donc ci la yëngatu moo ko sos depuis 1914 fañ mooy far iji dem bay jàng alxuraan dem bay jàngale xam-xam moom daana toog di jàngale xam-xam ba mu jotee ku ñu wax ji liggéey daan fa jàngale xam-xam ji liggéey ñoom jàngalen formé leen tey ñooy jàngale xam-xam ca daara jooju ca Mbour muy daara yi xasaayit kër sañ asin kër asan Fall Mbour fi mu toll ku ñu wax Mouhamadou Jaxate moo fay jàngal xale alxuraan huit heures ba six heures ci ngoon bu loolu weesoo six ñu tàmbali jàng xam-xam waxambaane ak mag yi ak ñu bëgg fa ji te ay mag bu loolu weesoo ku ñu wax Modou Fall tailleur taalib dañu am sala mu sëñ soñ ak Abdourahmane Sow ñëpp ay tailleur am nañu métier bokk ci daara xasida yii ñoo koy jàngale xam-xam samedi ñu durus ba mu ngi xoolal suñu am tudd mi nga xam ne li ëpp ci ñu jàng jaali bu tu moo leen ko jox daaraam lu mat juróom ñetti téeméeri xale ña nga fa di jàng alxuraan xoolal la daayira bu ñuy wax fatul man fatul fataa mi ngi ko lycée Bambey ñi ngi ko sas 1987 ci atum 2000 lañ jëm ci sëriñ Abdourahmane mu sëñ Abdou Xuddus Daaru Moxti sàkku ci moom mu tànnal leen ay téere xam-xam yoo xam ne dañ koy dañ ko war a jàng sëñ Abdourahmane tànn leen fukki téere tasawuru sixaar tasawuru subaan jawharu nafiis naxju xasmaawi ibnu xaasir risaala misbaahu saalik masaalik mu lawi mu layun wala mu nawir bu ñu jàng baax na nga xam ne 2000 ba léegi daayira boobu daayira durus xasida la waaye 2000 ba léegi fukki téere yi bokk na ci sart ba balaa kenn bokk ci daayira bi téere fukki téere yi da nga koy da koy jàng nga xam ne am na ci lu ñu baree bari yoo xam ne ay taalibe ay étudiant wala euh, ay élèves français lañ jàng nañ sooru si aar sooru si banteen yëpp mokkal ko am na ci ñoo xam ne sax ci daayira ba fasu fataa fa lañ jàngee ba àgg ci xalil lëwal ak saani ñenn ñi sax ñu ngay jàng ibnu Durayd li ma bëgg a wane rek mooy daayira yi ngay gis ñuy daayira durus nga yaakaar ne duñ jàng xam-xam yow yaa xamul waaye ñi ngay jàng xamul dafa bokk ci seen sartu ñoom daayira boobu membre bu ne da nga jàng fukki téere yi da nga jàng alxuraan am na ñoo xam ne jàngee nañ ci alxuraan xam meetar ba naasi ñenn ñi xar same ba ñenn ñi mokkal nañ bàqara ba naasi ñooñu fi dool nii bis dimanche bu jot ñu wàcce kaamel weeru koor wii daayira ba muy wax daayira durus la di ay étudiants di di ay élèves bis yëpp ñu wàcc kaamel ci weeru koor bi yëpp guddig layl xadar ñu jàng ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett te kenn du leen ca ñii de ku ne jànguñu xam-xam jànguñu alxuraan waxoo loo xam kenn du leen wax ñoom rek ñoo koy jàng kon xasiide yi naan jànkatu xasiide yi duñ jàng alxuraan bu ñu jàng alxuraan dañuy jël jël bu ñu jàng xasiide dañuy jël dañuy jël baatu alxuraan dañuy ŋàññi alxuraan wax ju sosul fenn la dégg naa rek ngay wax dégg naa rek waaye dañuy wax mukk ci ki nga déggee te damay wax loo xam ne nii léeg-léeg ay intoxication dafay am ku siiwal wax te wax ji wérul am na ku nekk fii mbooloo mi ku tudd sëñ Mouhamadou Ndiaye li may bëgg wax moom mën na ci seere daa am ku ci ak kilifa ko war nañoo wax jànkitu xasiida yi ndax ñoom neeñ ñoo gën rasulullah yi ñoo gën seeni bàyyi ba kilifa nga tàng ba ko déggee ma ne ko wax jooju yar naa tey yaa ayyuha allazina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu qabla an tusiibu qawman bi jahaalatin fa tus bi xalaat la faatu naa leen maag sëñ Modou Ndiaye moom ñuy topp wax jooju ba àgg ci ki nga xam ne moo ko waxoon bañ ko laajee da nee na moom wax jooju mu ngi koy soog a yëg daa de man kon maa naa ko maa maa ci njëkk taxaw te moom moo dem ci kilifa wax ko loolu li ma bëgg a jublu rek li ma bëgg wax mooy am na ay intoxication ñu bañ ñu jàng xasiida jàng xasiida di leen déranger ñu wër naan am na ku naan nangam am na ku naan nangam te duñ la ma a wax mukk ki ko wax loolu jar naa bàyyi xel ba tey mbokk yi sëñ Abdourahman mu sëñ Abdou Khoudous firi na téere xam-xam yépp nag yépp nag mi ngi ci MP3 yi nit ñaa ngi ci jàng xam-xam nit mën na cee jàng xam-xam ba jeexal téere yi te yow doo ko xam sëñ Alhaji Mbàkke mu sëñ Moussa Absa mbooleem sëñ Tuubaa bind firi na ko ci olof mu am ay téere nga xam ne boo faree ji rek mën ngaa tëral sa sa bopp indi na. baatu ya lañuy firi indi nam maxnaaya ba say intérêt bi nit ñaa ngi ciy jàngee xam-xam jàng bu wér-wér li ëpp ci boroom xam-xam yii bu ñuy def conférence ci internet bi lañ def di fa conférence képp ku bëgg xam si diine loo bëgg xam sa diine boo duggee ci internet bi léegi xam ko ba tey Abdou Aziz Majalis système boobu ña ngi fay jàngale xam-xam waxoon naa sànq drus point org ña ngi fay jàng xam-xam kon. duruskat yi ñu ngi jàng xam-xam bu baax a baax ñi leen di tuumaal nag xamuñu li xew am na ci ay kaan am na ci ay fóori am na ci ay borom xam-xam yi ñoom duruskatu xasida yi te sëñ Tuubaa nag li mu wax mooy digal naa mbooleem ñi aju ci man ñu xam seen faratay jëmm donte dañ koy xam ci beneen làng walaw bil xajamit la wax sëñ bi nee na digal naa képp ku aju ci man na nga sàkk xam-xam ku ko nangu ku ko def sa bopp nga ko defal ku ko def ku ko deful bul yebbi bul sa bopp daal di wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu def ilxaaq daal di li may digal na ngeen jàng ko mooy liy wéral pas-pas ak sa jëf mën a tege ci sunna mu ne ku ci xamul ku ci jàngul dara laajoo ko donte ci beneen làng la wéy rek def du la neex boo dajee sa bopp boo dajee sa borom da nga perte kon li ma bëgg ñu xam ko rek mooy duruskat yi ñu ngi jàng xam-xam bu baax a baax tuumaal leen nag ne jànguñu ñàkk a xam li xew ñàkk xam li xew la ñaareel ba mooy rek ma laajoon mooy am na fa exemple bu gën a jege daayira Hizbut Tarqiyyah bii kenn ku ne xam ne ci jàng xasida bañ sosoo ba léegi fu ñu am rek sees ñu ngi fay jàngale xam-xam am na ñu fa jàngee tey ba doon ay borom xam-xam di def ay ci ci télé bi kon am na ci yoo xam ne yàlla ñàkk xam la xoolal daayira kanful muxtadin daayira bi ñooy def bisu xasiida ca kër Sëñ Tuubaa ca Pikine daaw seen bisu xasiida téereb nax ju xadaay buñ firi ci olof moom lañ mool tasaare ko nit ñi di ko jënd ngir bëgg la ñuy jàng kon ñooñu tuumaal leen ne ñoom dañoo fonkul xam-xam tuumaal leen ne jànguñu xam-xam tuuma rek la ju tegul am na nag li nga wax ñuy tare bisu xasida yi naan sëñ bi digle ko woon mag ñi xamuñu ko woon ba àgg ci naan sax jàngkati xasida daanaka la wax di ëpp la sëñ bi moo njëkk a samb kuréel xasida sëñ bi mooy njëkk tànn ay nit ñuy liggéey ci xasida yi képp te ka nekkoon seen jiit ak kam la sëriñ Samba ginnaaw loolu kuréel ngeen fi gis bu ngeen fi gis ci ndigalu doomu sëñ Tuubaa la sosoo te niwal doomu sëñ Tuubaa jooju moo nekkoon xalifa sëñ Tuubaa ci jamono jooju xoolal benn kuréel bu su suur ci lu dul ndigal xamu kon day mel ne kuy diingat kuréel yi day mel ne kuy diingat kuréel mooy dingat mooy diingat ka joxe ndigal doomu sëñ Tuubaa ji doxe ndigal ñu sos kuréelu xasida day mel ne booy dingat kuréel xasida yi ñoom ngay dingat ndax ñoom ñoo joxe ndigal daa mel ne yow da a wax ne kon ñoom lañ joxe ndigal matu ko waaw yow mi naan nañ tas kuréel xasida yi ndax yow ndax yow am nga ndigal ci loolu te ñoom am nañ ndigal ci ki fi nekkal sëñ Tuubaa bis bisub xasida ngeen fi gis ka taxawal bis ba dem na ci sëñ Sidi laaj ko ndigal mu jox ko ndigal yow mi naan nag nañ tas bisu xasida yi ndax dem nga sañ Sidi Moxtaar laaj ko ndigal ci loolu wala déet te ji nga naan fal istu satun fi kay da waroon dem ci sëñ Sidi Muxtaar moom mi yor sos mi yor ndigalu sos ndigalu sos nga laaj ko ndigal ba jox la nga soog waxal loolu xoolal Thiès bisu Thiès bokk nañ ci ñi njëkk a def bisu xasida ña ngi ko defoon ci ndigalu sëñ Saali 2005 2006 Dakar bisu xasida kan ful muhtadin ci ndigalu sëñ Saali ñu ko defoon keroog ba ñuy laaj ndigalu sëñ Saali ku ñu wax sëñ Mouhamad Ndiaye Hisnul Abraar Xaafe Cobaan Mor Daage Silla Abdoulahi Guèye Moukhaddamatoul Khidma ñoom ñoo demoon ci sëñ Saliou bañ laa jee ndigal sëñ Saliou ba noppi sëñ bi da leen ne yàlla ngeen ci daje ndimbalu sëñ Tuubaa ak taw fii xam kon kay xanaa kooku joxe na ndigal am na ci bisub xasiida Italie ñi nga naan bisub xasiida daa bari ba jàll Italie te xamuñu ne bisub xasiida Italie la ñu ko am ci senegal Sénégal 2003 la am Italie te ñu ngi ko defoon ci ndigalu sëñ Saliou am na mbooloo mu sa jóge Italie ñëw ci sëñ Saliou di sàkku ndimbal di sàkku ñaan ndax na leen ramas dafa metti sëñ Saliou jox leen digal ne bu ngeen demee na ngeen dajaloo di jàng wakkaane xàqan bañ ko defee diir bu gàtt maire ba moo ñëw fekk leen ñoom fa ñu daayira ne leen yéen am ngeen ndigal fu leen neex ngeen jaay ko ci dëkk bi Amérique am na bi su xas yi da ña ngi ci jamono sëñ Saliou sëñ Saliou bu leen ci jox ndigal mas ñoo jàng million ci wakkaane xàqan bañ ñëwee wax ko sëñ Saliou sëñ Saliou dana ne àdduna bi yëpp xaj nañ ci jox leen café ak suukar ak pom ak beneen beneen fruit bi bu ñuy lekk ba xaw a miroon pom waaw waaw poire xanaa ko kay waaw kon jeex na nee na euh, daayira bii sëñ Sidi Moxtaar moo joxee ndigal daayira xasit la ci internet lañ ko sosee bu mook ci ci lañ xamante ba tey daayira Muxaddamatul Xidma li sëñ Aliou Diop jiite sëñ Saliou moo leen jox ndigal ñuy jàng fulku ak xidma ba noppi keroog bu mu leen di jox ndigal daa àgg ci ne hmm, xidma de jàpp ba set toog jublu penk jàngoo mu ngi mel ne fekk kafe bu tàng fekk baraada bu tàng jër bay bax nga ne ko sëcc naan mboolem yëpp tiit sëgg mu ne waaye nag sëñ Tuubaa nee na ku jàpp ba set toog jublu penk jàng mu xadamatul xidma boo noppee ku la jox loxo su waatee nga rasulullahi la jox loxo junng moo leen jox digal ci loolu te ñoom daayira daayira xanaa bu araamoon sëñ Saliou leen jox digal ci loolu sëñ Saliou yëmul ci loolu mas leen a woo am at dugal leen ci keesu man la fa seeni jàngaloo leen ay xasiida keroog sëñ Saliou jox na leen juróom benn fukki junni ak juróom benn kii xanaa tëriwul tëriwul benn fan rajo muy bisub xasiida bu daan amale ci sëñ Saliou sëñ Saliou nekk na fi di sëñ Tuubaa ñu koy def ci ci ndigalam ci biir këram at mi mujj fekke bisub rajab boobu sëñ Saliou moo ñëwoon boo xam ca mbooloo bi keroog ba mu agsee bokk nañ ci li leen wax yoon waa ngi noonu yoon waa ngi noonu maam li ñuy def mooy yoon bi sëriñ Tuubaa mbiram yëpp ci xasaayid la nekk xasiida yi ñooy ay tànkam kon xanaa bisu xasiida bu araamoon wala bu ñu ko doon tere sëñ Saliou ci joxoon ndigal xoolal daayira Muqaddamatul Xidma bu sëñ Aliou Diop jiite at mu jot dañ may sëñ Sidi Maxtaar bisu xasiida boo xam ni kër sëñ Sidi Maxtaar dañ koy defee daaw këram gii ci saam lañ ko defee bañ noppee xasiida yi jàng dañ ko koo limal sëñ bi bég ci lool waaw bis boo xam ne nag jàng alxuraan la ndax bisub xasiida bu ngeen fi gis alxuraan moo fa jiitu ñiy jàng alxuraan la ñuy teg ci kanam ñuy jàng ñiy jàng xasiida ñiy conférence ñi mënta ñi faru ijji yor seeni cours di def ay lixlaas ak salaatu nabi ndax lii jar naa tas te bis yëpp nag ci ndigal la solo yow mi naan nag nañ ko tas kan moo la jox ndigal ci loolu ki naan bi dafa ko woon ki naan sëñ Tuubaa ko woon te sëñ Tuubaa def na ko waaye même bu ko sëñ Tuubaa def doon ak a bari li ñuy def tey te sëñ Tuubaa dafa ko conférence yi ñu def ci jàkk ndax mos na koo def ci jamono sëñ Tuubaa jamono sëñ Tuubaa ful ko lañu daan jàll waaw internet bi ñuy def ci jumaay Tuubaa jii nii jumaay Tuubaa ndax amoon na ci jumaay jumaay Njaaréem ba ju doy waar xew ci am na ci koo xam ne nii ci internet la dugg doon xool lu mu warta xool ba son bi génn ci ci ci rajo jumaa ji dañ ko nëpp nëpp ndax loolu amoon na ci jamono sëñ Tuubaa màggal gi ñu defee Touba gii nii màggal gi ñu defee Touba ci jamono sëñ Touba kenn ku ne sa kër nga ko doon def sëñ sëñ moo ko indi moo kon am na mbir yu bare yoo xam ne yu baax la te amu doon ci jamono sëñ bi te mi ngi am kon lool du lay waaw nag lu tax ñu naan nañ tas kuréelu xasida yi waaw ak bisu xasida yi waa écrit lam yi ci Touba nag teewoo ñu njëkkee loolu écrit lam yi ñu ngi ne fi xas écrit football yi nag bu nawetaan jotee kuy déglu rajo yi da nga dégg ay équipe yu dëkk Touba di joué ji Mbàkke am na ci yoo xam ne sax demoon nañu ba joué départemental ak régional dem ba jaaree lu tee ñu tas yooyu loolu xanaa aram nga kenn sikkiwu kenn sikki ko waaw groupe théâtre yi ci lu tee ñu tas ko yi nekk ci dëkk bi nag lu tee ñu wax nañ tas loolu jàkka yi nekk ci biir dëkk bi ñuy tere ko fa jàng xasiida te ñu wax ci loolu te bàyyi jàng kat xasiida yi léegi nag buñ fi bàyyi lii yépp di wax nag kuréelu xasida yi mooy am na kon la ci ginnaaw la ci ginnaaw nag moo jar a xam ku ko xam rek yow mbir bi dootul déranger jàkk yi yoo xam ne ku fi jàng xasida ñu la ko mu dëkk bii ci Touba ak ay école yoo xam ne ku juum ba wàcc Sëñ Touba ñu la uxuruj boo dee wala ñu la uxuruj yi am na ñu ci dëkk bi te ñoo lijjanti loolu bu noppi na ñoo xam ne pas-pas wahabi ñu ngi koy tasaare ci dëkk bi ñu xam ko am naa sama ne yoo xam ne doomam la yóbbu internat diir bu gàtt ñu tàmbali ko soppi ba da ko fay jële lu tey ñu wax ci loolu lu tey ñu wax ci li xew léegi nga xam ne buñ doxee jamono ji tuuti buñ ci jugul jàngalu xam kenn dootu ko def muy internat yi baax na ci kiy jàngale ndax ñu koy fay te je jekk na jaar na waaye buñ bàyyee mu law ki am njaboot gu bari kenn lay jox internat ñu ci des du gis mu leen jàngale te nii moo gis muy dem bu dajul bu dëkkul ñëpp daal yëpp ci internet lay mujjee te su boobaa dana baax ci sëriñ bi jàngale waaye ki yore ñeent doom juróomi doom te wërsëg a matiwu kenn la yóbbu daara ñi sama bàyyi ñuy lu tee ñu xalaat ci yooyu wax ci yooyu kon liy wax ci jàngkatu xasiir ay sos la ay nar la te mag day wax lu ko leer buñ la indilee information bala nga cee wax ka ko wax na ci teg sa bët nga laaj ko ba mu ne leen naa ko wax nga soog koo jàllale. waa in jaakum faasiqun bi naba'in fa tabayyanu qabla an tusiiba qawman bi jahalatin fa tusbihu alaa maa fa'altum naadimiin mbokk yi kon dafa mel ne ngir gàttaay waxtu bi rek nañ tënk foofu ñu jàll ci yeneen laaj yi. ci leeral bu am solo boo nga xam ne leeral boobu laaj bu am solo la ndax laaju laaju actualité werante yu bari na ci fan yi waaye jàng xasida ab li moom am na cëslaay cëslaay la wóor boo demee ci irwaaw na dem mooy ci xew-xewu mbaaxaan bi Mouhamadou Touba moom sëñ bi dafoo jox xasida gi ne ko bu arme bi accès na nga ko jàng jàng ko benn yoon ñett yoon la ko jàng kon kay loolu baamu la te ci kanamu sëñ bi lañ ko defee te sëñ bi waxu ci dara kon kay baamu ab lim am na ci kanam sëñ bi waaw sëñ Saliou ci boppam atum 2000 ci lu ma leer loo xam ne kenn nettali ma ko wakkaane xaqan jàng na ko 12000 fois fukki junni yoon ak ñaar ci atum 2000 waaw kuréelu Amérique gi ñëwoon ci moom ne ko wakkaane xaqan sëñ bi su xasida bi jàng nañ ko million sëñ Saliou di leen weddiwu leen waaw góor leen wax neen àddina bi yëpp xañ na ci jox leen kafe ak suukar jox leen pomme jox leen poivre waaw waa Italie yi mu dajaloon nag ñu jàng xasit avocat daaqal loolu baa mënul soxna Astu Gaawaan mu sëñ tubaax jox na ndigal sëriñ Aliou Diouf sëñ Aliou Diop xidma ak sëriñ Adama ña nga wakaane xaqan ne leen ñaar na wut ñaar fukki ak juróom-benn ak yéen ñaar muy ñaar fukki ak juróom-ñett bu ngeen defee loolu na ngeen dem njaareem néeg ba sëñ Tuubaa wàcce liggéey. ngeen tibb ci suuf sa jàngal ma ci kenn ku ne ci yéen junni si nit yi ñoom ñooñu kenn ku ne jàng junni si nit yi mooy ñaar fukki junni si nit yi ak juróom-ñett tifli ko ci suuf indi jox ko soxna Astu Gaawaan soxna Astu Gaawaan ne lii li ma ci jubloon mooy damaa bëggoon a liggéeyal sëñ Tubaa loo xam ne maa koy njëkk a liggéeyal jël suuf sa dem yóbbu ko ci barabu sëñ Tubaa loolu doomu sëñ Tubaa def na ko te ñi mu ko doon def loo ñu ngi fi waaye ba tey soxna Astu Gaawaan nee na sëñ Tubaa moo ko joxoon ndigal ne ko sa soxna jaara de ko jàngal si ndigg mu jooy soxna faati doomam jooju naan mu fi nekkoon ba tax soxna asgawaan daana digle altine ju ne ñu jàngal soxna asgawaan juróom-ñetti si ndigg bisub xamis bu ne jeudi bu ne ñu jàng juróom-ñaari moo wax loolu doomi Sëñ Tuubaa moo joxe loolu te ñu mu ko joxoon ñu ngi fi yor naa loo xam ne mbindum si Iblaxan la mu dem sëñ ab sekkare ci tox fa ko dara yi ne mu tudd ab lim nekk ko jàng ngir aajo jom man danu faju war koy ab ngi doon man rek personnellement mos jàng wakkaane xàqan fukki junni fukki junni yoon ak ñaar def naa ko sindi def naa ko tonfatu jaali bu ma dàq bi tëju naa ko ay fan di ko jàng jay sun ku ñu wax sëñ Idrissa Baabu moo ma joxoon digal sama gën a bokk ku ku doy waar la woon àggoon na ci ay jamono daana wax fii ba juróom-ñaari asamaan lu ma waay laaj ma tontu la ci te jaalibatu moo ko may lool man moo ma joxoon yoon ñuy duggee xalwat jaalibatu ma daxal waaw am na ku ma xam ku ñu daan wax mbay saar daal nekkoon mi ngi dund ba jot daal di jàng juróom fukk fukk ak ñaar ci loolu am na lu def ci moom daanañ naaf te tool ya jaan yi wax cox jaan yi gën a ragal mu di ko jàpp ci loxoom nii de ko dajee ba mu bare dem di ko sànni waaw kon sëñ Muntaxa mii di xale sëñ Basiru mas naa jàngaloo fii ci yàkk ci pencum daal bi na mii jëy suñu ci ful xam naa ñu bari ñu ko doon jàng am na ñoo xam ne ñu ngi ci mbooloo mi nii bokkoon nañ ko doon jàng am na yu bari bari yoo xam ne dañ koy jàng sax su bàngoon loolu baamu la man naa ci tudd Duhaawul Kabir Fawsul Muti xasida yu jàng su bàngoon la Durus Samin dañ koy jàng su bàngoon yuqaru sabaa na masaar xalaat yi ci insa amrillahi moo mawaahibu rahmaan noonu xisbu sabaa wal masaa al mun ji fit daare min aswaay yi ñuy jàng subaa ngoon la sabit sabitul amaan dañ koy jàng subaa ngoon ak xisnul abraar bii dañ koy jàng subaa ngoon tuufa fi mu toll nii ku xam secret bi dëgg-dëgg soo koy jàng ñetti yoon nga koy jàng ndax ñetti ñetti yoon cinquante huit bayit la cinquante fois trois cinquante huit fois trois moo lay jox xëyul xëyum nga xam ne boo jàngee xasida ñetti yoon am nga xëyul xëyum waaw mbokk yi boo demee ci téere sëñ Sylla nee na sëñ Tuubaa nee na bi may defar xasida Maxadamatul Amdaax dama àgg ci bayit bii yu bas bashirukal baax yi bi xatti karamatan wa in kuntu han ardil madina saanax yi nee na loo tuddee baatu madina xasida gii bayit bii xasida gi am nekk xasida gi ñu koy jàng suba ngoon ci bopp yont bi ci madina nee na xasida gi il il bi ma ko taalifee diggante ndakaaru ak il boobu mu ngi mu ngi toll ne diggante ndakaaru ak ndar falaa taalifee xasida ma xam am daa sëñ Baara mee toog nett li ma loo xam ne sëñ Abdou baayam la ko joxoon aw bayit ci muqaddamatul am daa ne ko foo fekkee ab rob soo ko baamoo juróom-ñaari yoon néew ko moom ñu jéggal ko kon mbokk yi baamu xasida am na man la bu si fay subaa ngoon dañ koy jàng ba tey sëriñ Aliou Diop xidma na leen woo dugaleen ci keesu man la bu soo sëy ni keroog ñetti kaamil lañ fa jàng ak mu xadamata xidma ñaar fukk ak juróom am naa 28 te bañ ko waxaa jàng gaaral nañ ko sëñ Saliou jox leen ci ndigal tey kon kay lim am na ci xam naa koo xam ne mën naa bañ a tudd turam naa ñëw si Ibrahima ne ko damaa bëgg am ngërëmal sëñ juba si Ibrahima ne ko boo demee sa kër na jël xasiid ak minul baax xadim jàng ko juróom yoon ne ko boo ko defee danga nga am ngërëmal suñu kon dañuy wax alxaasiyatu fil maxnaa wa sirru fil xadadi lépp loo gis njëriñ la mooy ci maxnaa ba waaye secret ba ci limba la te nag jàng xasiida xeet la ci tudd yàlla te tudd yàlla ñoom bëgg mu bari sëñ Tuubaa wax rek surtout wax ne waskurullah xataa yaqulu inna ma ñun di leen tudd yàlla bañ ne daa dof kon di leen jàng xasiida bañ ne daa dof xiib laa dee na yàlla moom kenn yemul na léegi nag jàng aw bayit nag di ko baamu am na ci slaay ci yoon bi sëñ Tuubaa waa barsàqe wax naa ko sànq buñu musaani jàng ibakaan xaqaan asapta yooyu sëñ Tuubaa moo leen digal ñu baamu ko bàyyi ba tayit boo jëwee ci xas yi dañuy wax xasaayidu subhiya am na ci ay bayit yu ñuy baamu saa yoo jàngee ci xas yi da nga koy baamu yii ñetti yoon te ci sëñ Tuubaa la jógee téere ba xam naa turam xam santam nee na doomi sëñ Tuubaa ak waa Barsàq ñoo ko wax ne ko sëñ Tuubaa moo ñu ko digaloon nii boo ñëwee ci bisub dimanche la ñuy jàng ca xaaj bu mujj ba ci xas yi da xuyóoru sil hijja wa maa xablaha haraba kullu man xalaani mukmada bi hubbi rabbi wa hubbi ahmada dañ koy ñaari yoon xasida jaawartu boo koy jàng ci xasida usba usba yooyu boo aktee ci ax faar yes siral mosol xutban wala ilaha la da koy baamu ñaari yoon kitaabu rabbi kaani bu bi sakantu da koy baamu ñetti yoon te nee na soxna muslim moo ko wax ne ko sëñ Tuubaa mu leen digal woon nii wax ji moo kon neen ci baamu yëpp danaa ko wax kon li may tontu ci loolu am mooy xasida mas na koo jàng ab lim ndax sëñ Tuubaa def nañ ko ci kanam waxul doomi sëñ Tuubaa daa nañu ko def baa mu xas it sëñ Tuubaa joxoon na ci digal ku dem ci usbu ya da nga ko fekk. jërëjëf Cheikh Mamadou Bachir loolu leer lool ñu def nañ ci laaj bi topp ñii dafa laaj ne ndax bu dee xas la doon dagal na wala déet ndax dina am ñu koy am ñu koy tax di loolu yàq. waaw loolu moom li ñu ciy tontu mooy boo demee ci Fathul Baari sarhu Sahih Bukhari soo jàngee ci buntu ahabul asmaa yi ilallahi ak baabu ismul xasan wa huwa di jur saxla buntu boobu boo ko jàngatee ba analyse ko la ngay gis mooy lislaam tur wu baaxul lay bañ waaye tur wu ne nangu na ko tur wu ne nangu na ko yonent bi sax nee na inna ahab asmaakum ilallaahi abdullahi aw abdurahman tur yi gënal yàlla mooy abdullahi aw abdurahman am na ku mos a tuddee yonent bi sax la sama doom tuddee ko alxaasim yonent bi ne ko sammi ibnaka abdurahman sammoo bi ismi wala takinnoo bi kunyati am na ku nga ñëw tudd xasan am na ku ma sa ñëw tudd ci am na ku ma sa ñëw ci yonte bi xadis boo xam ne ibnu musayab moo ko nettali ne bàyyi bàyyam fa ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yonte bi ne ko noo tudd mu ne ko xasnun yonte bi ne ko bal yonte bi ne ko anta sahlun kon lislaam day jële turu ñaaw turu kii indi ko ci turu rafet mu ne ko tur bu ma sama bàyyi tuddee tur wóor moo ko soppi yonte bi néew ko soppi ginnaaw da ko bàyyi noonu am na ci Fathul Baari sarom sa ilbaxe li ñuy wooye tahwiilul ismi ila ismin ahsan minhu jëlee tur tur bu rafet jël jëmee tur bu gën a rafet gàttaayu waxtu bi moo tax bëgguma dugg ci détail yooyu waaye lañ ci jànge mooy tur woo xam ne nii tur wi tur bu rafet la mën nga ko tuddee sa doom sariha du la ci yam lislaam li nga amal sa doom mooy boo amee tur boo amee doom tuddee ko tur bu rafet loolu ci ay àqam la waaye léegi foofu mooy laaj bi li may tontoo mooy am laaj bu fekkee ne turu xasiida daa rafetul kon tuddee ko daa araam bu fekkee turu xasiida daa rafet kon tuddee ko dagan na loolu mooy tontu bi waaw léegi am na beneen sew saw waaw hôpital ak nit lu gën a tedd nit a gën a tedd fa hôpital yi ba ñu ko tuddee mën na foo sëy ni doomi sëñ Tuubaa joxe tur wi muy sëñ Saliou waaw fii quartier yi ñu tuddee nag ay quartier yi ñu tuddee nag ay turu xasida quartier yi sëñ Saliou sos fii muy fanweeri quartier ak juróom-benn am na ci quartier boo xam ne jësul xulub la tudd xanaa kon boog jësul xulub kay ku mën a tuddee aw na ko tudd nag wakkaanaa xaan am na fi fattul xam am na fi mu nawir sudur am na fi ma waxi bu naa fi am na fi tudd nga ko léegi tey surul xasir am na fi ci quartier yi buus baax naa am na fi kon kay bu ñu tuddee ay quartier ay xasida kay kon nit ñi min baa bi awlaa nag kon waaw nag waaw tur daayira yi nag daayira yi doomu Sëñ Tuubaa yi yi ñu tuddee ay ay te daayira yi ay nit ay formé tuddee ko kon loolu dara newu ci naa ñu sax ñuy dàq naan diw wakaan xàqan diw nangam di ko tere waaw léegi ñi dàkkantele seen tur nag ay dëkk nag man sama waajur laaj seex tur bu génne damay koy wax ah? ñu naan diw Touba diw nangam waa léegi lu tax ñu bëgg a daganal yii araamal yi mooy wane ne kon mbir yi am na lu ci ne waaw diw fecckat diw nangam te yooyu yëpp araamuñu ko ma ne mag ñi mag ñi am na ci koo xam ne doomam Ahmad tuddee na ko Ahmadou Mouhniyane am na ko tuddee doomam indil na Abdoulaye ñooñu ci mag ñi la sëñ Cheikh Fall Xataaba ci mag ñi la kan moo ko tuddee sëñ Cheikh Fall Xataaba ndax mag ñi fi nekkaloon daa leen digal loolu ndax doomu sëñ Tuubaa daa leen kon nag yenn yi da amul ci ginnaaw rek la ci ginnaaw nag moo yàlla jënte ñi ci ginnaaw di ay wahabiya di joxe ay intoxication ci nit ñi dem ci borom xam-xam ne den wax wax loo xam ne kooku wax xolam jub bu leer loolu wax njaaxum ñoo ñoo jara la jënte waaye du jànkata xasida yi loolu moom leer na lool mel juma am na yeneen soor te sëñ Fall mu xam am yoon dina xam lislaam waaw waaye dama doon ne ñu ne am nañu ci ginnaaw ñu leen doon ñu mën a bàyyi xaw doy waar rek mooy ñu jafe xàmme ndax kuréel yi leen jàpp ne li ci cër ba ay sew sew yu bëri da ngay gis muy jàll daanaka ñooy ñooy seere kuréel yooyu ñaar mm-hmm. kon loolu mën a bàyyi xel daal ñu leen bu baax a baax mu mel ni laaj topp mbokk yi laaj ci wàllu tawasul bari na coow barki démb rek dégg naa ci benn rajo am ku naan ku tawal say loxo naan yàlla may ma nangam ci barkeb sëñ diw dangaa bokkaale am na ko ko wax ma ne am na ko wax loolu waaye tawasu dafa am cëslaay ci diine ci alxuraan ci addis gàttaayu waxtu yi moo tax du ci dugg waaye nañ xam ne addis bi wér ñëw na ci sañul Buxaari yi di wane ne xamar suñ masaana bekkoor danaan def tawasul ci xabaas mi bàyyi tax yonte bi ngir ñu taw ngir ñu taw am na hadis bu wér ak gumba ñëwoon ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bëgg gumba ngoo ko dañ yonte bi te ngaa muñ nga am àjjana mu ne ko su ma noonu dañ moo dañ yonte bi jox ko ak ñaan nga xam ne tawasul mi ci biir gumba ga ba mu jàngee ba mu jullee ñaar rakka jàng ñaan ngoo ko yonte bi xam gumba ga dañ muy muy gis te lool tawassul mi ci te dafa def tawassul ci yont bi sallallahu alayhi wa sallam kon tawassul am na ci cëslaay ci diine xëy na nag ku am ku jàngee ci école boo xam ne ñoom tawassul dafa araam ci ñoom yaay waxee noonu waaye ñun école bi jàngee mooy école Sëñ Tuubaa nangu na tawassul foofu sax ab sew sew nga boo gisee ñu bare bare ci wahaabiye di tere ku jàng xasiida mooy tawassul yi ci nekk fi mu tey Arabie Saoudite boo fa yóbbu woon tooxu sama gër su àggee ñu sànni ko ci poubelle ba ngir tawasul bu ci waaye nag heureusement ba ña ngi jàng xasida te ñoom ndax li ma nettali léegi ci xasida xadmat am daa ña ngi koy jàng suba ngoon ci bopp yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom nag boobu nekk ci xasida moo tax ñuy tere xasida yi même jàkka yi ñuy tere fii ñu fay jàng xasida tawasul bu ci nekk moo tax toxtu solo mu dara xina fi tawassuli bi asmaa'il fadlin donc kay tawassul la man la foo sëñ sëñ bi def na ci tawassul xas yi de goo romb rek tawassul mi ngi kon ngeen xam ne ku leen di wax ne tawassul daa araam moom école moo wax loolu waaye ñun suñu école yemul ci wax ne daa araam yemul ci dagaan ko waaye sëñ Tuubaa da koo def ñun nag sëñ Tuubaa def doy nañu sëkk waaye nag ñëw ci ab dëkk mag sanc ko ñu ko gëm ne fa sëñ boobu def tawassul nga ñëw ci dëkk ba naan ku def tawasul da ngay bokkaale kon moom xanaa bokkaale gi da ko bëgg a tàmbalee sëñ Tuubaa mi njëkk a def tawasul ñu di ko ci yooyu nag jar naa bàyyi xel kon tawasul moom sëñ Tuubaa def na ko te lu sëñ Tuubaa def nañ doy nañ